di sant Cheikh Mouhamadul Fadal mi me boole ci Serigne Touba di ñaan yàlla fayal na ko yàlla taasuñ ci ay barkeem di ñaanal Cheikh Seydil Mokhtar xalif général des Mourides mu yàgg fi loolu te wér ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg a liggéeyal Serigne lépp mu àggale ko ci sago te nu fekkee ko te ànd ko ak moom noonu lañ koy ñaanalee njabootu Serigne Touba gépp góor ak jigéen mag ak ndaw di ko ñaanal jullit yëpp di ko ñaanal Sénégal gépp di leen nuyu yéen ñëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw kenn nekk wa rahmatullahi taala wa barakaatu fas yéene tënk kàddu yu gàtt rek ndax daanaka wax ñaari yoon wax lu bokk du ko jar ndax jotaay bi yàgg na te mi ngi bëgg a guddi dañu nuyu ñëpp rek góor ak jigéen mag ak ndaw sant kuréel yi ndokkeel leen ci jët lii ak mbooloo mi organisé lii rëy na lool rafet na lool eh, delloo njukkal sëñ Tuubaa la liggéeyal sëñ tubaala kon yéen ñi koy def te ñun ñu waroon koo def ñun ñoo leen ci sant yéen ñëpp ak fu kuréel mën a jóge rek góor jigéen mag ak ndaw di nuyu suñu mbokk yu tedd yi teew fii yépp man nag li may wax ñu teel a xam ne rek wax yi kuy barkeelu la waaye kilifa jataay bi mooy suñu Cheikh Baara ndax jataay bi jataayu Serigne Touba la te Cheikh Sidil Makhtar mooy Serigne Touba te moo ko fi teewal kon donte suñu doom la te mu waaye te teewut mooy kilifa jataay bi ndax kii kilifa ak jataay gi moo ko yónni te dañuy wax ne ar rasul bi qadril mursil dana mooy fi teewal Sidil Makhtar rek bu ñëwee mooy ubbi mooy tëj mooy ñaan mooy dénkaane. man damay barkeel li may barkeel rek daal di rocc ko ndànk bu ko defee def sama sama yëfi dongo moom bu ñëwee nag jiitab jataayam tëj jotaayam ñaanub jotaayam kon ñi leen di sant ci loolu baax ngeen ma baax ca ma fekki lii ba man cee barkeel loolu kàddu yu gàtt yi di nuyu sama mbokk yu baax yi teew yëpp buñ ci tuddee sëriñ Bousso bi Bousso rek tut yóbbaale na bokk yëpp ndax ñi fi teew ñëpp ñii seen waajur la ñii seen maam la ñii seen baay la nuyu itam sëriñ Bayla kan wax nañ ma jotaayam ak jàpp gum jàppe communauté bi ak nu muy jàppalee mbooloo mi xam gum xam ne euh, lu baax lépp benn la muy teew seen a jitaay di jàppale ci moom mbooloom kon ñu ngi koy nuyu di ko sargal bu ñu ko tuddee tudd El Hadji Ndaw rek tudd nañ ko léegi consul général du Sénégal a New York tudd nañ Sénégalais yépp ndax moo fi toowal république du Sénégal teewul fi président de la république du Sénégal teewal fi état du Sénégal kon ñu ngi koy nuyu di ko gërëm ak mbokk yi tedd yi yépp ci tënk rek ndax dafa guddi te sëñ Abdou Karim sëñ Abdou Karim sax ndax sëñ Bachirum sëñ Abdou Karim la lim fi tënk eh, doy na sëkk bëgguma cee delluwaat damay tànn rek ci li ma tënkoon benn benn baat yoo xam ne rek xëy na ñëwut ci li wax ma jaar ci ci ci ci gàttal rek ñu daal di yewee ko li ma dañ ñëw sàkkoon ci ñun ñu waxtaan ci yitte alhimma gis dégg ngeen li mu ci wax daanaka neexutu yokk leneen waaye au lieu may baamu li mu waxoon di ko baamuwaat pour gagner du temps damay tànn benn benn baat yoo xam rek fàttali ko ci ci gàttal wax na lan mooy yitte ak importance sam delloo na ko cosaan li mu ñu fa mu fa mu jógee baat sori na lool loolu bëggoon naa cee wax tuuti waaye du du ko jar ci alquran ñëw na ci ñëw ci na ñëw ci waxe sëriñ bi waaye fi may gën a insister rek mooy ni sëñ bi li ngeen di wax instrumentalisé sëñ bi ni mu ko defee méthode pour jàngalee ko ak yare ko loolu bu ñu ko waxee dañuy wax ne kon sëriñ bi ku yàgg yitti la sëriñ Tuubaa ku yàgg yitti la mën nañoo dem sax ba wax ne yoonu murit école yitti la daara yitti la bu ñu waxee loolu tuuti ay baat yu gàtt rek ñu def ay proposition xam ñu dañoo xaw a léegi nag def bu ñu waxee ba mu rek ñu ne bu ñu def dama leen di proposé ak nangam ndax bokkoon na ci ba ma njëkkee fekkee jataay yi def naa Savana la woon Georgia am yu ma leen proposé woon maa ngi gis ne am na mi ngi feeñ. bokkoon na ci li ma leen proposé woon nañuy fexe ba bisu xaside yi di am thème loolu alhamdulilah maa ngi gis na mi ngi am tem ak mu nekk bokkoon na ci li ma proposé woon ñu fexe ba di ko def ci dëkk yu centré yu neex a dem ndax yooyu yëpp day gën a jàppale ci liggéey bi loolu gis na ne ma nga am ak yeneen ak yeneen kon danaa leen def ñaari proposition rek ñu tënkee ko door a ñaan eh, sëriñ bi ku yàgg yitti la waaye balaa loolu lépp li ñuy ubbee rek ci gàttal ci tënk dañu bëgg a wax rek ne gannaaw bu ñaanale ñëpp sant ñëpp ndokkeelaat ñëpp ci su bi ñaanal sëriñ bi ñaanal sëriñ sëpp ñaanal Sénégal gépp jaale Sénégal gépp itam ci ñaari wala ñetti kilifa yu mag yu fi jógee bu yàggut ñaanal ngeen leen jaale ngeen leen waaye waaye lu baax du doy mu di sëriñ Moudou Aïcha sëriñ Baara Moudou Lamine Baara moom sëriñ Touba di sëriñ Afiya Mbacké moom Cheikh Moudou Fadel moom sëriñ Touba di sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy moom sëriñ Aboubacar Sy moom sëriñ Hadj Malick ñooñu ñëpp di ay mbokk yu baax jóge fan yi ci gannaaw ñaanal ngeen leen sax jaare na leen waaye ñaan ñaan du ëpp ci ci ci tëj gi ñu leen dëxëñal ci ñaan gi ñu bëgg ñaan bu ñu tëj insha allah yàlla yokk seen leer te yàlla yokk seen yërmande ñu leen ko jaare yéen ñëpp euh, li ma bëgg a tàmbalee itam tey rek mooy lii lu rëy la jëf ju rëy la sëriñ Touba léppam rëy ndax jataay bi jataayu sëriñ Touba la kon dama dalee gàttal wax ji rek euh, dugg ci sëriñ bi sëriñ bi léppam dafa rëy kon eh, eh, damay wax suñu mbokk ñu delluwaat baax a baax rek roy ko ci ni mu doxeek sangam ba sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi daram tuutul sëriñ bi amul lennam lu ñuy seppi yëkkati lii tuutal lii lépp ma ndax noonu la defoon sangam ba sallallahu alayhi ne ko sama lépp rek day màggal sa lépp yu bajjilu kulli kullaka yawma ma gadin wa insha rabbi la ara dahra aw la ura dahra zawani yow sallallahu alayhi wa sama lépp rek day màggal sa lépp lu aju ci yow rek loo wax luñ bind ci yow ku bokk ci yow loo laal foo ma sa nekk sama lépp rek day day màggal sa lépp kon ñun tam suñu lépp rek nañu nañ màggal lépp sëñ bi yéen a ngi sax lii benn aspect la ci màggal lépp sëñ bi waaye lu ma ci bëgg wax rek mooy te sëñ boo xam naa ko fi daaw wala ca ca gendarmerie ak feneen li mu bind da koo bari ay tur ndax xam na maanaa bi am loolu jëruñu ci taxaw waxoon naa fi ne dana ko tuddee ay muallafaat dana ko tuddee ay xoroof dana ko tuddee ay kitaabaat dana ko tuddee ay aqlaam dana ko tuddee ay tawaalif dana ko tuddee makaatib dana ko tuddee xasaid ak yeneen a yeneen man boo ma ci barkeelool bay boole yu yëpp ngir man ko boole ko mu tudd ko an nusuus al qadimiya le texte xadimit aw al xadimiyat nga xam ne dañuy barkeelu ci tur yooyu yëpp sëñ bi def kon boo koy màggal mënoo ñàkk màggal xasida yi ndax li ëpp ci mit liggéeyu sëñ bi la sëñ sëñ Bachir wax na ko sànq karaamati xattu yët yi lu sëñ bi ko wax sama kéemaan sama kawteef sama karaama mooy sama mbindum loxo waaye nag sëriñ bi léppam dafa màgg moo tax da ngay màggal bindam gi nooy def njabootam gi foog nga màggal njabootam gi la ko tere ci Cheikh Modou Moustapha ba ci Cheikh Modou Moutada ak ñi ñu meññi boo boo bëggee màggal sëñ bi te màggaloo leen lu du sotti ndax noonu nu ñu mel sëñ bi kon boo leen di màggal rek màggaloo leen sëñ bi ngay màggal kon njabootu sëñ bi noo leen def cheikh yi sëñ bi taalibi sëñ bi mag yi mu defar sëñ ba Bachir juñu na ko noo leen def këri sëñ bi noo leen def màggalug sëñ bi noo koy def war moo ko digle ci ndigalam damay fàttali rek ndax dafa am tendance bu xew danaa ci ñëw mooy damay wax ne eh, wax na nangam rek sëñ Tuubaa rek ko sëñ Tuubaa rek ko yeyoo man ngaa wax ne sëñ tubaar rek waaye leen lu mu doon rek boo nee nangam rek rek loolu des na ndax loolu lu mu lu mu rëy rëy boo ca boo ca seppee sëñ bi mu dootu mel nen kon mënoo wax ne njabootu sëñ bi rek mënoo wax ne xasiide sëñ bi rek mënoo wax ne màggalub sëñ bi rek mënoo wax dëkkub sëñ bi rek lépp sëñ bi ngay màggal foo ci toll nag màggal fa sa sa tolluwaay waaye màggalal lépp ndax moom dafa màggal lépp yonante bi sa alayhi wa sallam fa mu teg yonante bu ñu ko mën toy itam bu ñu ko mën teg itam ñu roy ko kon nooy def njabootu sëñ bi ñooy def taalibi sëñ bi yu mag defar nooy def dëkk sëñ bi nooy def sëñ bi xeex ki mu xeex tubaab yi nga xamne ne mën nañ ci yenn fanaan ci def ci ay séminaire ay colloque du jeex ak ni mu xeexe ngeen balama ci wax bi ñaari ñaari ñaari ñaari xeex yi mooy arab ak xexu tuwa bu da nak ku sa nek julit da ngay def na bala nga bax da ngay nek arab te señ bi indi luñu distingo différence arabité ak islam donc amna lien bu len boré lool ndax langue arab alcorane ci arab la wacc yonente bi ci arab la wacc señ toali bind ci arab la ko bind wax na sax ne jaawartu rabbi bi lisanil arabi bila nihayatin wa tabat qurabi ci langu arab moy moy support bimu don use pour wax pour pour wax ni ngeen di waxe tuuti ndax wax ci gëna gaaw jall support bimu don use langu arab la mais taxut mu sa wax fenn arab la waye luy la luy lu am mana ci arab yi rek jël nako ko lu ak nim xexetu wabbi tubaab rek man na doy seminar ko bo ci don bind ak di ca wax fi ba yowmal qiyam do gis ku ne ma sa dañuy wax ne sëriñ bi rek ma sa tàbbi ci loxoy tubaab yi ñu seppi ko yóbbu sëñ sëñ Bachirou ju ñu ne ko juróom-ñetti at mu dellu si di di dund waaw sooxul amutub léegi bàyyiwut la mu doon wax kenn comme doon moom rek radiyallahu la bu ñu la seppe yóbbu ay keese keese ñëwaat ëllëg moom rek moom mos nañ seppi yóbbu mu dellu si nooy def sëñ bi ni mel ci alxuraan li mu liggéey ci alxuraan ak li ci def li koy jàng li mu ko jàngul li ko bind li mu ko bindulu daa di kaymal ji mu sos ju ñu ne ko ak li mu wax nag noonu la ko yàlla doxee alxuraan ak ni mu ko bëggee kon mënoo wax sëriñ bi te waxoo alxuraan mënoo wax sëriñ bi te te waxoo ni mu jàppe alxuraan ni mu ko jàngee ni ma ko bindloo danaay wax ne loolu dafa lawa lawa lawa law ba waxuma la daaree kaamil yi nga xam moo ko njëkk sos bu ñuy xool histoire mosuñu cee dégg xam ne dañuy yëkk xëy di jàng kaamil ñeenti kaamil bis bu set ca gànnaar ba fii ñu bari lool ak li ma ko bindul waaye li xew ñaari at yi weesu rek ci màggal yi ak ci bis bi Hizbut Tarqiyyah doon def doy na misaal ndax sëñ bi dañoo wax ne mas naa bind lu kaamil ci ñetti fan waaye gis ngeen màggalu daaw jéeg bi comité d'organisation bi suñu rakk suñu xarit suñu Bachirou Mbacke jiite ñu tànn mbooloo ci Touba ñu bind kaamil ci benn jataay maas ko ñu topp ko dajale ko ci benn jataay loolu def nañ ko def nañ ko ci màggalu daaw jéeg def nañ ko ci journée culturelle yi Hizbut Tarqiyyah doon doon yëngu yéen ñëpp siwur ngeen loolu boo doon seen histoire loo ci mës a dégg loolu mbooloo mu toog benn jataay bind alxuraan ba mat te geestuwuñ ko lolu lolu kéemaan la lolu doyna na bi kéemaan kon mëna wax na sëñ bi rek wala alcorane rek lepp ci la sop gi sëñ talib yi top sop sëñ touba nun ndongo yi nun ndongo yi sopp gi sëñ touba mu gënal suñu lepp gënal suñu fépp gënal suñu ñëpp coono bi ngeen daj ak fi ngeen jógee lepp sëriñ bi tax ak sacrifice yi ngeen def ku ngeen mësa gis ku ay ñako top bëggin na mu jaral leen loolu kon mëna wax ne bëgg sëñ touba rek yalla dimbale ko tam tawfiqi mu boole yu jafe kar muy ak njabor gu barkel ak alal ak fanu guddu ak wir ak xam-xam ak wilaya bo doon gëstu lol rek bo gis do gis ko ko bolé ko du sëriñ Tuubaa man nga am li les joosi da nga am li les joosi deng serigne sëñ wax na legi alal alal ji niko yalla yàlla rësëq yokkee tani nangam nangam liko yalla jox lu dul jeex motax ndari gandar yi tafarraqatil amwalu minka sadar madar ndari gandar yi nga xam ne daan xëpp jëpp tej leen xep rek motax wax sank ci bir benn shérif bi mag daf maa wax ne baayam daf ne Sénégal ak gànnaar ñun ñëpp dañoo juum ci sëriñ bi waxin la mu ne Sénégal dañoo bëgg sëriñ Tuubaa ba def ko yàlla waaye du yàlla waaye nag loo bëgg ci yàlla boo jaaree ci moom am ko mu ne gànnaar dañoo bëggee ba jàppee sëriñ Tuubaa banque waaye du banque waaye nag boo jaaree ci moom loo bëgg ci banque am ko ne kon nag ñun nañ fexe ba ba def ko lépp rek nañ ko def yàlla def ko banque rek kon rek bu ko defee boo jaaree ci moom loo bëgg ci yàlla am ko boo jaaree ci moom loo bëgg ci banque te banque ci liggéey bi nag la am lu bari lu jóge banque baax na ci liggéey bi kon loolu ku ko boolee laa bëgg a wax rek foo ko mës a gisee beneen aspect bi mooy li ma li ma fi tuddee woon euh, mbindum sëriñ bi ñuy jàng di ko yëkkati te muy lu lu lu lu dafa mel ni alxuraan dafa am xaabiliya li ma li ma li ma wax li ma tuddee madrasatu xaabiliyatu madrasatu cheikh qadim li adati muqarabaat maanaam euh, école sëriñ Tuubaa ba ngeen mu baalee ci baatu école bi parce que moo ko wax bil Mustafa lii banal quddus madrasatan biha yazurul ada wal jahlu wal kabadu kon lii ñu yëngu école la daara la daara jooju dafa dafa dafa dafay dafay système de vie nizaam xayaat la boo xam ne rawatina li mu bind mën nga koo def approche littéraire waxoon naa fi lu ko lu ko nëru ni mu koy bindee ni muy composé way yi ni muy composé xasida yi loolu xam-xam la bu taxaw ci boppam nga xam boo ci yemoon rek sëñ bi doon man approche économique waxoon naa ko fi daaw def naa ne nga xam ne mën ngaa dellu ci xasida yi organiser sa économie la tàmbalee ci production baag distribution baag épargne baag nangam nangam yi ngeen xam yooyu ngeen xam mën ngaa dellu ci sëriñ xasida ak njàngale sëñ bi génne ko ci mën ngaa def approche sociale ni mu jaxasee nit ñi nim mu nit ñi ni mu xalaat xeexee kast yi ni mu seexee la ñuy seexal nii boo na nam da waxoon ne xotti naa baax da ngeen histoire ba tey xam nga Sénégal dañoo def eh, dañoo am ay classe sociale kaamil ba yow mu binduloo woon doomi soxna ëwloo ku ku ku ku waraan ëw mu binduloo kaamil quran jangal quran alquran mu defaloo ko jafira dugal kamil ba ci jafira ji ne xoti na bax damay bëgg wax rek ne mi man ni mën ko dégg sëriñ bi wala man nga def approche approche politique ci ci mbindi sëñ bi man nga def approche morale man nga def approche réna yi aw sama yi moy li ñuy def kuréel yi kuréel yi ñuy def ben la ci approche yi man def ci mbindi sëriñ bi waye du mom rek approche bu am solo la bu am maanaa la koy def ñangi daanu di yuuxu te xam ñu mi wax mais ben la ci approche buñ ko fi centraliser ni moy lepp amna solo lol kenn du ko werante waye nak benn la ci approche bu ko fi ni ñu koy delo rek moy dañ fi tollu di magali di waye man nañ ko magal neneen tam te li rek du magal gi reyna lol li bax na lol qasida yi bax na lol kuréel waye nak duma du bi duma rek moy liggéey bi jang ko app def ci approche genn ci luñ ci mëna jarñu tay ak alakhirah ci la bok den nak nak yëkkati ko di ci di ci bànneexu di ko di ci teral soxal di ci defaru kon loolu laa tuddi approche samaay wa aw approche communicationnelle Sëriñ Tuubaa communicateur la boo xam ne kenn mës mës ku mel ne moom ndax ndax li ñuy jàng message la islam la ci jàngale islam la ci wane yonent bi la ci taggee ak ca appel bu rëy ba ba mu wootee adduna sépp ci li mu yëgutu yaa ahla barri yaa ahla baxri ujuli barri baxri saxaay mën nañ ci jël approche la on la non violence loolu nga xam ne Eh, am na ñu ci tudd ci réew mi naan def nañ ko ak feneen waaye li Sëñ Tuubaa def kenn defu ko ci dara na wax na ci gàttal sama yoon rey melentaan bokku ci sama yoonu Sëñ Tuubaa mu ne yoon rey bokku ci kon kooku boobu googu wet rek mën nañ caa sori lool lool lool sëriñ bi dafa yàgg dafa yàgg ak eh, ni ma ko waxee himma yitte te yitte sëñ bi sëñ bi définir na ko léegi rek ci gàttal mooy rek ni ko ni ko waxee non la ko wajala won moy da ngay wut da ngay am lo bëgg nga mobiliser li nga am lip ci ay moyens pour ag ca waye nak budé fi ñom ñoom liñ ci moy ngeerumul yalla ngeerumul yalla ngay wut def ci sa li nga man lepp ak lo mënut pour am ko ta gaawé ko am ko ta gaawé ko moo tax damay wax ne ñaari mbir buñ ko buñ ko tuddé rek ci señ bi yagam ak yagam ak yité bu ñëkke bu moy soxna su mag radiyallahu anha soxna jaara te mooy royukaay soxna yi tëdd yi baax di suñu royukaay yëpp himma foofu dafa yàgg ak sëñ bi ba soxna si wax ne ba muy dem fa ma dem sëñ maam wax ngeen baal ma ci waxee ni waaye histoire la dafa xam ne ab yonent dootu am waaye bu yonent doon am mu xam ne lam dana fa liggéey ko may ab yonent loolu himma gënu ko koy te boobu sëñ bi feeñeekul ci saayar moo tax ma ne sëñ bi dafa yàgg ak himma beneen ba mooy ba ko Maam Mor Anta di dénk boppam Maam Mor ak fa mu àgg di dénk boppam sëriñ bi ndax ma ngay waaj jëm ñibbi àjjana nga xam sëriñ bi nee na xott bi la am na jamono sëriñ bi buy bind day wax ne xaalab nu cheikh yi te ku sëñ Tuubaa nangu sab sëriñ xam nga kooko kooko doo coomo te téewut ba mu demee ba war a dem àjjana dafa dénk boppam sëriñ bi soxna maam Anta Ndiaye ngi nga xam ne dégg ko wax ko maam Cheikh Anta bam la mu jur dégg ngeen ko ba tàyyi li ma bëgg wax rek loolu dafa sori mais beneen déclaration bi bi nga xam ne moo moo yëngal daara ja mooy li mu tuddee déclaration de Mbacké Kajoor sëñ ba Bachirou juñ ñu ne ko rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bi dars faqat na nga muy ñaari muy muy ñaari affaire yu graw yoronte bi neen yoronte bi neena ma dafa graw yaral sa waa kër yi ci yitte te bu len yar ci jang kesse kon loolu ñaari gravité fa am bu njëkk bu moy yoronte bi neena ma ndax lolu ñiko ko won wax bari bariwul ñaaral ba moy jaral len ci yitte bu len yar ci jang kesse motax seigne bashir Mbacke ba muy décrire baat bobu mu ne ba lolu amé day le ëppoon ca gaay dañoo dem ñun tuuti des fa zahabal jullu wa baqiyal qullu le ëppoon ca donga ya ci daara ja dañoo parce que ñun xamuñu ko ñun dal jàng lañ xam yàlla nee na yonente bi nee na imam diw nee na imam waaye nag naan yonente bi nee na ma nag moom kooku moom beneen affaire la moo tax mu ne kaana fatiata ahdin jadid dafa am benn rupture bu am gannaaw déclaration boobu moo tax sëñ bi li ngeen mënoon sàkku mu ci waxtaan lu garaaw la parce que li yëngaloon daara mamor ante seli ja yënga daara daara sëñ tuwaa ngeen bëgg cee wax kon baat bi kat yàgg na garaaw benen ci gattal benen ba moy gisee mak mam Cheikh ibrahim Fall radiyallahu anhu biñu ñu gisee rek ak siwul rek dal jeblu xam ngeen histoire bi deg ngeen ko ba tay deg ngeen ni ko sëñ Bachir mbake netele bam ñewé ñu waxee dama top yalla dama bëgg ku ma ci yalla nangam nangam waye bam mu ko man de bima ma di wur kuma yobul la ci yalla suma ma kuma yobul ci yalla suma ma kuma jeblu mu may digal may def ci ma ci ràmme bay waye rek ma gis fañ ko denc kon sama pëstéef kon mooy sama yitte dana ma àggale fa ma bëgg dafa wax ne jëlee na gis sëñ Tuubaa muy wax ak moom jëlee na dégg muy lu mu bind waaye su gisoon fañ ko denc rek yitteem dana ko àggale ci yàlla ne sëñ Bachir nett ne sëñ sëñ bi ne ko wax nga lu baax waaye ñu nun tam day bañ jógee di roy sallallahu alayhi wa sallam buñ ko gisutoon alxuraan gisuñu xadiis yi gisuñu gaa yu baax yi li ñu mais biddiw yi ñu xam daan na ko tiim rek kon suñu yitte danañu àggale fañ fañ it biddiw yi nga xam ne daan na tiim yonte bi sallallahu alayhi wa sallam te muy même biddiw yi kon yitte yàgg na fa waaw may wax nag ne yitte dafa euh, muy al himma ci arab dafa am baat yum nuróolu yu jege ci gàttal mooy yéene li ñuy wax al niya al irada li ñuy wax al ixlaas yooyu yëpp ak ak sidq sëñ euh, sëñ Bachir ju ñu ne ko day baat yu jegeeg moom yoo xam ne xataayu barab bi dana tax ba dama koy tënk rek du ma ci mën ak waaye dañoo nuróog yitte te bokkuñu kon day mel ni yitte moom day dajale yu baax yooyu yëpp waaye da bëgg dara def loo man pour am ko te gaawe ko te gaawe ko ndax ñàkk gaawe gi mooy war a indil ñàkk taayal gaawe gi mooy waral eh, def ci yitte daawa gi mooy def def ci yëg-yëg gaawe gi mooy def ci jom mooy baat yi sëñ sëñ Bachir doon junj sëriñ Tuubaa nag euh, ni mu jëfandikoo ci xasida gi wax xoqa ndax ba bisu xasida li nekk wax ji dama ko seet fu sore dama koy tibb ci xasida gi rek xoqa sëñ sëñ sëñ sëñ Bachir junj ne ko def naa ne bayit bi ci ko jële ku doon la hoo himmatun يرقى بها ابدا الى عزيز المعزين ذي فتوحات غايو باخي نيكو سيني بي ديفه موي ليما جي ديغ مان سيني بي بوك سي غايو باخي لي تاغ واي تودو جي كين سين كليفه لا تودو محمد صلى الله عليه وسلم دامي واخني بوبا يفي دوينا وار بغنا خاملي بوبام واي امنا لو خام كير منو كو واخ سي بوب مو مو واني بورتري غايو باخي ني لاني ميلون yen yen ñi mu wax mu ne ñew leen top ma yar leen fi dama bëgg ngeen mel nii ngeen di defee pour mel ko su ngeen ko defee nii ngeen di mel bo boppam lay wax gaa yu baax yi ñooy ñan bari nañ lool waaye boo seetloo xasida tudd ci kenn ku dul sallallahu alayhi wa sallam miit sayyiduhum wa wa wa seen royukaay nga xam ne wax na ne gaa yi dañuy topp yàlla gaa ñu baax ñi dañuy saxoo wird booba boppam lay wax ci sama déggin dafa bëgg wax rek ne gaa yi kaay leen nii laa mel kaay leen kaay leen ci ndimbal li ma yàlla defal bu ngeen ko defee da ngeen mel nii donc méthode la pour man moo tax kilifa gu baax nañ dafa ma sa wax ne xoqa doy doy na sëriñ xoqa doy na te bu ngeen seetloo baax yi ci wax ngir ak woyefam sëñ bi tudd na ko tawaadu am tudd ci kenn te xam na leen ñoom ñëpp kon booba la la ko sëñ bay jaxate waxoon rek ku dul yow ku dul mën a yem day gétti def lu baax dellu ci ay borom yow rek sax ci lu baax portrait bi muy wane moom moo ko mel waaye mënu ko wax parce que dañuy wax ne mas naa wax ne la anhu sama mbir mi am na cat lii cat li mooy li ciy tax a jariñu mëneesu ko wax sama romam gor li ci tax li ci tax a jariñu mu ne ko mëneesu ko wax sama romam gor xam nga kaay war maal ma kaay topp ma kaay magal ma kaay mëneesu ko wax moo tax ki mu tuddee a Ibrahima Fall mu tuddee al shakhsiyya al kashifa la boo xam ne dafa dafa dafa muri li fi nekkoon noonu gàttal ndax bu ci duggee day gën a xoot bi bi fi gaa yi nekkee mooy quarantième taalibe bu jëblu sëriñ bi xam ngeen ko dégg ngeen ko ba tàyyi waaye lam fa wane ak doxalin sëriñ bu nu ko wax nam dimbale gaa yi ba jaar ci yoon yëf yi gaaw te sëriñ bi moom melaloon na ko ci portrait bi ci xoqa sëriñ bu nu ko wax mais Cheikh Ibrahima nag moo ñëw wane ko shakhsiyal kaashif la ko tuddee personnalité bi nga xam ne moo murim li fi nekkoon moo tax sëñ Fall la ko daan wax ci waxeenu poètam yooyu ne Cheikh Ibrahima Fall nañ sant ki tee naat bee naaw nañ sant ki tee naat bee naaw wax waxin la pour wone ne serigne bi bu fekkone dañ koy dañoo bëgg mbaax di ko rëbb di ko ki tax ki té mu neub ba dem gannaaw yalla Cheikh Abdou Fall la jërëjëf jërëjëf jërëjëf

te wilaya ngi xam ne ñu ngi koy am ci ñeenti ñeenti ñeenti point lay jóge dañuy noppi dañuy nangoo taxaw xiif bu yàgg dañuy nangoo eh, fugg lu guddi du nelaw dañuy nangoo topp nit ñu baax ñi ñu ngi junj rek li ñu bëgg mooy sariquhum xastu wajhillaahi mooy wut ngërëmul yàlla sëñ sëñ Bachiru ñu ñu ne ko sànq idil muridu laa yuridu abada siwa rida rahmani haytu qasada rida rahmani yi rek moo am solo dana ñëw ci kanam ci ndénkaan yu sëñ bi def donc dañuy dañuy dañuy am xam-xam dañuy yare ci xaalaat aw adkaar aw ishaaraat ndax na ko xaalaat aw adkaar aw ishaaraat dañuy junj lay doon wala ay wax wala ay positionnement sëñ bi mën na laa wax jox ma satala nga defaroo ci sëñ bi mën na laa wax wutal ma këriñ nga indi ko takkal ma fi am néeg nga jaar ci defaru takkal ma fi aw sàkket nga jaar ci defaru moo tax mooy tax adkaar ak xaalaat ak ishaaraat mu ko junj boo bëgg naa wax ni ni la leen bëgg a defaree waaye mu mu indi portrait gaa yu baax ya dañuy xam li ci xol yi dañuy dañuy tabe dañuy ragal yàlla dañuy jub dañuy mën a dénkaan ngir yàlla dañuy bari xam-xam dañuy am himma aliya ji tëju kawe dañuy am leer goo xam ne yàlla ko def seen xol mu ne nag dafa am instrument yu ñu yu jëfandikoo yoo xam ne yoon bi ñu tegee dafa am ay yëf yu ñu ci jaar mu ne lu mat fukki yëf la ñuy jaaral ab tukki lay doon tukki boo xam ne dañu koy waajal mu ne tukki bi li ñu bëgg rek mooy ngërëmul yàlla dañu bëgg a paré fi joggé ak xol yu ki wut ngeerumul yalla dañuy tukki tukki bi moy yoon wi ñi jaar tariqa bi dañuy dañuy am kuy tukki te fa nga xam sori te lëndëm da ngay wut ku la yóbbu mooy dalil am cheikh am sëriñ da ngay am yobbal moy ragal yalla da ngay am ngannaay parce que yoon wi mën nga tesee lu lay lor wala lay mat wala dara da ngay am ngannaay mu ne ngànnaayam ya am japp lañu ñu dañuy am ab lamp parce que bobu électricité mo ni nii mu ne lay nital moy tuddu yalla parce que tudd yàlla day reelal xol dañuy am al mataaya nag dañuy am ay lu ñu war ni ngay war a oto ñoom mbaa avion mbaa leneen ñoom himma aliya la ñuy war yi tuju kawe dañuy am lu ñu wéeru muy taroot ko ci kanam yàlla dañuy am al minhaj méthode kooku mooy charia al islamia dañuy am rufqa ay gars yu ñu àndal parce que dem ci yoon yoo dong wóorut da ngay wut gars yoo àndal hum ixwanun lahum himamun awfiya sudaqa dañuy am yitte yu kawe kawe ci gàttal wax naa ne baatu bi te ñëw na ci alxuraan ay yoon du jar ma ciy dellu ndax ngeen ko xamee alxuraan sujet yi muy traité daanaka li ci ëpp ñeenti la amrun wa nahyun wa waadun kal waidi maa mooy dee digle di tere di dële di xuppe ak di indi ay xisas histoire yonante yi dégg nga sëriñ bi jugee na ci loolu def na ci ay kaset yu yéebane yu yéeme ci gàttal rek baatu himma ñëw na ci alxuraan ay yoon ñëw na ci suuratu yusuf ñëw na ci suratu Ghafir ñëw na ci suratu Ali Amran ñëw na ci suratu Nisa ñëw na ci suratul Maida Maida sax laa waroon njëkkee tax moo féete kaw waaye ci gàttal rek wala xad hammat bihi wa hamma biha te yonent yàlla Yusuf ak Sulayxa ak ak histoire ba ngeen xam nga xam comme yitte ji alxuraan juñu ne ko waaye ñun sens bi ñu koy waxee fii rek mooy yitte woo dara def ci yëg-yëg ak positif ngir ngërëmul yàlla ñëw na ci suratu Ghafir ba tey muy wax histoire katabat qablahum qawmu Nuuhin wal ahzab min ba'd wa hammat kullu ummatin bi rasulihim mbolo mu nek juk di xex yonent bi ñu fa ñëw ci ñom diko lor ba am ci ñoo xam dañu ray ay yonent sax ak yu bare bare bare ñëw na ci sourate Ali Imran muy nettali ka yéefari di xex yonent bi id hamma taifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa ala llahi falyatawakkal almu'minun ñëw na ci sourate Nisa la hamma taifatun minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun وعيد لكم شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما تي قاتل رك نور نور نور نيونا سي القران واخ غايو باخي يعني، نانيو ديف ييتي دي خيخ يونتي باخي يعني. نيونا سي سوره المائده اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم لي لب لو سي نمون نانكو ديتاي يو بري بري واي دوكو جار تا غودينا تا سيغ آه، بشيرو آه، واخنا سي لو بري بري بري بري غايو باخ يوي مو واخ نون سي جارنيو wax na la gay gaa yu baax yi mooy waaju ji rek waaw ndax mom suñu bay la ko suñu bay ji wax rek ku dul yow man mën a ku dul yow ak man yam wa day gétt def lu bax delu ci ay bon borom yow rek sax ci lu bax gannaaw mom sax ci lu bax nak moy waju baax ji rek da ko war malé ni da ngay dégg man naan yu yi nang ci ciy jëriñoo li abdin muridin sadiqin lahum man na wax tuuba li abdin murid sadiqin liya man na ko wax waaye baaxit rek motax tax lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyaat bo ma ngay tracé yoonu yu yi jaar da ngay da ngay koy liggéeyal liggéey moy indi yon tarbiya aw nga koy sopp ngir yalla aw ngay joxe hadiya ngir yalla boobu moom mënul wax ne kaay leen liggéeyal ma mënul wax ne jox leen ma hadiya ma defar leen mënul wax ne soppi ma defar leen waaye da koy wone porte gaay yu bax ya gaay yu bax ya lu te mu tuddu leen muy wax gaay yu bax yi niñ meloon dañuy bari xam-xam wax na ko sank dañuy xam xam-xamu secret yi dañuy bala ñoo def dara dañuy xam la ci wir dañuy taqaroo ragal yàlla fil bidaayaati wa fi nihaayaati dana ñëw ci xasida gi dañuy taqoo eh, not seen bakkan dañuy taqoo gis ñoom ne ñoo gën a néew maanaam ñëpp kuñ gis a jàpp ne yaa leen gën dañuy jàpp ne niritewuñu ay ay ay ay karaama dañuy jàpp ñoo gën a kàccoor ci gaay yi dañuy jàpp ne yeewuñu sax yàlla di nangu seen ñaan dañuy muñ dañuy tuub dañuy ragal naafeq dañuy dëggu kal dañuy bari xam du ñu woote dara seen bopp booba mu lay wax te lu ñuy def dañ koy def ngir yàlla donc damay wax ne kon lii day wan ne kooku mooy xaarita tarix maanaam euh, euh, li ngeen di wax feuille di ruut boo xam ci la bëgg gaay yu baax yi mel ko dañuy muñ dañuy dëggu dañuy bari xam-xam dañuy lewet dañuy sori woote dañuy euh, tàggat seen bakkan dañuy dañuy fóot seen xol dañuy génn yoon yàlla mu leer nañ bil fuyoo doote ci ay ngëneel yàlla yàlla jox nga xam ne boo demee ci xoq yi yëpp sëñ bi ko tënk waaw da ngay dégg fa mu tàmbalee ni gaa yu baax yi da kaanu ibadatin bi taatin li rabbihimu wa kaana jallahum rabban bi minnaati gaa yi dama gaa yu baax dañuy ragal yàlla dañuy jaamu yàlla yàlla moo tax yàlla joxe na ay xéewal dañoo jàppoon ne sax bàyyi wird ak ànd ak ñu suur day dana jox ay musiba كانوا يعدون ترك الورد مع الشبع من الحلال من اسباب المصيبات من بغاي بو ديمي با غودغي غودغي تر بغاي نلاو ньо دي مباج ييك نيغناي ньоم دي نيوك كبار جيم سين بروم كانوا الى الليل ارخى سترا ذا حلك قاموا سراعا لاحياء الدجنات دانك مكو في ديف اك بن بن رك سما كراس كو بري بو نيفر ديمي جوري تد نيبو ياغ مو ني واخ جودول واخ جو امول سولو دنجكو جاي جندكو ستود يالا باعوا فضولا بذكر الله خالقهم فنموا في الليل باعوا بالمناجات ولي نك فاي نلاو كديف ييب دا نيتود يالا ما ني سيرتن تيلي با ني نك ايباد ما ني نك انترنت ييد نيغي نيغي جامو يالا دا نيو ديما ديم بودوتو نتود ناس كينا سلمى وليلا بالبشارات لو جونغ ما ييغ لو نروك اموتو سوخلا تي يوي سا بو جونغ مو جوغي مبالو لين نرا بيف واخين لا لين نرا بيف نرا ديمل سي لو دونا غين نك سن خيل مستاسين باذكارنا واياتي لي كوي لي كوي ويتي موي تود يالا جانغ القران سين وقتها موي تود يالا بيغا خا مو في ريس فاو لا ذكر هند ولبنان في المقامات بن في نك دي تود اي سخنا دي وك سخنا ديو دي نيت ньо خا نك اي سيدي غناي تي لاني تي لاني تي لاني داني سيني نون با تخ ньо ام لو كووي كووي كووي ньо ньо موي نيان بوبم لاي وخ رك وخ ناكو في سانخ مو ولايه غي ام نينت نيت نينت افير كوي فوندي سمت وجوع طويل بعده سهر وعصة عن شيوخ بالإشارات dañuy nangoo dañuy dañuy tax ko noppi tax ko xiif bu yàgg lool tax ko ñàkk nelaw guddi ak onze de tun ànd ak ñu ànd ak sëriñ su leen teg ci yoon yoonu yàlla sëriñ bi ñu ngi ne ko yoon sëriñ Saliou sëriñ Saliou modèle la loola mu ne seen liñ liñ bëgg mooy fi ñu bëgg ak wax naa ko sànq mooy ngërëmul yàlla kon ma fii ci nun buñ ñu ko waxee mooy ku jël sa li moyens yi nga am yëpp def ko ngir am ngërëmul yàlla te gaawee ko parce que baatu gaawee boobu da ci am solo cosaan yooyu nag mooy dañuy bari lu ñuy tuub ci yàlla dañ koy ragal dañ koy yaakaar xawf ak raja dañuy bari lu ñuy lu ñuy tiit ci kanam yàlla te it dañuy doylu ci lu ñu am lépp lu dul yàlla rek dañ koy dañ koy mën a muñ dañuy taqoo jihaadu nafs ak di sant yàlla tarkul tifatin ila xajil bariyaati dañuy bàyyi di gestu kaagaay ñu soxla ci lu kenn def lu nit def du seen problème mu ne am nañ li ñu bëgg mooy fukki fukki mbir leen ci yóbbu mooy dañuy jëm ci yàlla dañuy am luy tegtaloo dañuy am ab yóbbal te mooy te mooy ragal yàlla dalil bi leen di yóbbu mooy ab sëriñ dañuy am ngànnaay te mooy am njàpp dañuy am làmp bu ñuy niite wax naa ko fi sànq te mooy tudd yàlla dañuy am ay lu ñu war ay lu ñu war mooy lu ñu tukkee comme ni ngeen tukkee oto avion wala leneen ñoom himmat aaliya lañuy la ñuy tukkee dañuy am dog dogu ak dogu ci lañu am xasm dañuy dogu am rek dogu lañ ci am dañuy am minhaj méthode bu koy defee mooy charia al islamiyya dañuy am ay ay àndandoo nag mooy ñu mel ni nun yàlla nañ ci yàlla boole wa rufqatun wa hiya ixwanun lahum humamun ma al wafaai bi sidqin fi l uxuwaati rufqa boo xam ne ay ñu ñu àndal ñoo xam ne dañuy am yitte ju kawee mu ne gaa yu baax yi yépp nag dañuy musal nit ci lu dul noona ñoom borom xam-xam la ku ragal yàlla day yare ci ay azkar aw ay halat ñu nako sank ku fi yare ci azkar ak halat booba bopum la bëgg wax moy gaay kay leen ma yare leen ni waye mu waxe ko ni ci ci jekkal ak ak ak woyof ak baax mu ne da ci am ño xamne muraqqin bi halil wahdaha abadan minhum murabbin muraqqin bil isharat ñi ay junj lañu yare ñi dañ lay xol dañ lay def lo dañ lay wax lo mu pour wone wax rek ne sama capacity yi amul fu mu kay leen ma jëriñ leen ci waye mu waxe ko ni rek ñëpp gaay yu baaxee yëpp dañoo tabe dañoo ragal yàlla dañoo jub te te fuñ toll rek yum ne nasihata fii kullil bariyaat ñi ngi digal nit ñi lu baax lépp loo xam ne nag day tax sa bakkan am wàcc wàcc yow dala koy aaye dañ lay jox xam yoo xam ne dafa kowe lool te jóge ci suñu borom loolu rek mooy mën na maa jox xam-xam yoo xam ne dafa kowe waaye mu waxee ko nii dañuy wane yoon yàlla mu leer nañ ngir ku bëgg jaar ci ñoom da nga àgg ci yàlla ak may yu doon yàlla wane boobu li mu bëgg a wax rek mooy nii laa mel yàlla may na ma lii كل له همة يرقى بها أبدا إلى عزيز معزين ذي فتوحات غاي باخي أنا غاي باخي مي واخ موم رك لا بغي واخ أمنا همة بو كوي كاي لن ميوب نتي الله تي لو غاو مو ني غاي باخ يا دا غيس دا أم بتي بير أك بتي بتي بتي خام خامو بير أك خام خامو بتي يرى الخفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات لتشوف خلي سنتو دان تنت خل لون لا بغي واخ دا غيس تي بير دي غيس تي بتي lépp lu ñuy def rek yàllaa tax dañuy am leer goo xam ne yàlla leen koy sol boobu li mu wax rek maa ngi maa ngi leer goo xam ne ay kaay leen mu dimbi leen sol leen ko waaye bu ko waxee noonu xëy na dana choqué wala dana dana dana dana kéemaane ba duñ ko mën a dégg moo tax mu waxee nii mu ne dañuy am euh, leer goo xam ne xol bu taq bu ci duggee da koy da koy setal comme ni kuy fóot ni muy setale mbubb mu tilim noonu lay setale xol bu taq mu ne ñooñu nag wala ay kal xawm laa yashqa ana ay xaw mi xaw mi yoo xam gisul noo toogee ak ñoom la yashqa jalisuhum id yuksibuna al muridina saadati boobu moom la bëgg a wax rek man daal ku toog ak man da ngay taxe ba faw waaye nag du ko mu mu mu mu warmaale ko nii ci waxin ku texe ñeel nag yëpp jaam boo xam ne nam nga ci yàlla te dëggal nga may liggéeyal mbaa nga sopp ma mbaa nga ma joxe addiya mais mu mu rafetale ko gaa yu baax ya mu ne gaa yu baax yooyu nag li li am fu ko amee rupture ñëw na parce que amoon na tarix yu mbokk nag nangam nangam waaye ba mu demee i'laanu Mbàkke Kajoor ba na taxaw nag ne rabbi asxaabaka bil hibba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wasilam ci la nag naaloo bi xaffi rasulil Mustafa rutaban sallallahu alayhi alladi yontil masiyaati lu tax ñu mën ko dañuy roy yonent bi sallallahu alayhi sallam gaa baax yi dañuy roy ki yàlla yónni woon ki nga xam ne ci lay julli di gisal dégg nga mu tudd kenn te diggam ak yonent bi sëñ Bachir wax na ko ñu bari jaar nañ fi xam-xam bi ñu am ak dëggu gaag wér gaag ragal yàlla gaag lépp ci yonent bi lañ koy taxawee ak wayaf ga ak gis seen bopp ne kenn ñoo ñoo gën a suufe ñëpp ñoo gën a kàccoor ñëpp waaye lépp waxin la yarawna anfusahum duna al wara abadan wa annahum lam yaliqu bil karamati wa annahum afsaqu lfusaqi kullihimu wa annahum lam yaliqu bil ijabati loolu lépp rek mooy gaa yu baax yi nga xam ne dañuy jàpp ne ñoom yeewuñ sax yàlla di leen ñuy ñaan yàllay ñuy ñaan yàllay nangu ndax seenu loolu waxin la ndax niñ niñ tolloo waaye boobu boppam la bëgg xam ne rek dañuy ragal naa feq dañuy jub dañuy dëggu dañuy dañuy dañuy set dañuy setle dañuy te seen xam seen dund mooy xam-xam noonu la ko toppee toppee ko tariqa eh, ahin ala faqdi sadan tariqatuhum tariqatul mustafa xayril bariyaati maa ngi méttul nag ñàkk ma ñàkk gaa yu baax yooyu waaye nag ñàkkuma ko ndax maa ngi fi waaw ñàkkuma ko gaa yi ko ci gàttal rek li ma bëgg wax rek bu ñu doon commenté xasida gi bu suba mën nañ fee yàgg te bayti boo ci jël rek la làqo loo xam ne ci ay ishaaraat ak ay junju sëriñ boppam la bëgg a wax waaye da koy dëxëñ rafetal ko eh, te eh, wane na rek ne gars yi kaay leen mel nii su ngeen jaaree fii jëfandikoo instrument yi nii ngeen di mel ëllëg taman naa ko kaay leen nag ma dimbal leen ci waaye mu ko déclaré déclaration bu nag affaire bi dafa ndax lu bees la moo tax sëriñ Bachirou Mbacke ne dahabal jullu wa al qullu li ëppoon ci gars dañoo dem mu ne kaane fati ata moo tax fii te sëriñ bi li muy def damay wax ne xàmmeewu ci ki bokk ci moom ci deret ak ki bokk ci moom ci pas-pas ak jàmbur yi ak jul jullit yëpp dama ci indi ñeenti exemple rek gannaaw avant proposé li may daaneele damay wax ne kaw yii yii yi ñëw dañ ciy dégg ne wooteeb sëriñ bi ak liggéeyu sëriñ bi ak daaree sëriñ bi amul góor ak jigéen amul bokk ak jàmbur amul ku ñuul ak ku weex adduna sépp la ko adressé ndax appel ba moo doon yaa ahla barri yaa ahla baxri ojo li barri baxri saxaay yéen waa géej yéen waa jéeri daw leen ñëw ci géej gi te mooy sallallahu alayhi wa sallam nga xool ñoom ñi jàng arab xam nañ boobu li ci nekk bar ak bar baxar ak baxar nga xam ne damay wax ne mooy li ma doon wax aljanibul adabi yaa ahla barri yéen waa jéeri yaa ahla baxri yéen waa géej oju li barri daw si leen wut si aj tab bi nga xool ñaari bar yi ñoo bokk nañu koy bindee bokk nañu koy prononcé mais bokk ñu ñu firi baxari saxaa yi géejug tab la baxari gee géej ndox la firi baxari gii di fi firi géejug géejug tab damay wax ne kon côté côté littéraire boobu ci ci bii di sëñ bi jar na def gëstu yu xóot a xóot a xóot a xóot waaw ñetti kii may indi ndénkaane la yoo xam ñeenti ndénkaane la bii sëñ bi da ko dénkaane ñëpp ci àdduna képp ku bëgg lu baax rek tey nit dénk na la ko benn bi mu dénk ko sëñ Cheikh Adama Guèye nga xam ne bokk na ci ñi njëkk jébbalu ci moom benn bi mu dénkaane ko Cheikh Mamadou Fadal di taalibeem am lim doom ci doon ngeen xam ko mu doon ci moom lim ci doon benn bi mu dénkaane ko muridam bu jigéen ku ñoo soxna Penda job. waaw dafa mel ni borom jotaay bi day aksi waaye dama ko junjee woon rek euh, si Cheikh Amadou Amin waaw bismillah bismillah baraka barakallahu fiik jërëjëf jërëjëf Thank you. kon baax nañ loolu bàkki bàkki bàkki bàkki bàkki bàkki bàkki si saan waa kër kon nag ñoo ko gisandoo rek bala maa gën a guddeel la la la la la la mu doon junj kon agsi na ke ma waxoon ne mooy borom jataay bi agsi na ak délégation bi mu àndal dama junjoon ne kat ñun dañuy barkeelu rek sëriñ bi donte ñooy sa waajur itam yow kilifa jataay bi dama ko daan waxee saa bu nekk rek njëkk naa koo waxee savana ci teewaayu sax rak sëriñ Xaadim Mbàkke ndax moom la sëñ bi yónni mu ñëwee ma ne ko nag ah man kat mbokki taalibe yee baax rek yéene ma aw yiw waaye man damay ñëw barkeelu rek waaye yow la sëñ bi yónni kon nag donte ñooy sa waajur yow kilifa jataay bi ndax ci moom kilifa jataay bi moo la yónni te naar yi arab dañuy wax ne ar rasul bi qadril mursil nit ki day ñëw daraje ko ko yónni gannaaw se jataay bi jataayu sëriñ Touba la sëñ Sidil Moxtaar mooy sëriñ Touba te moo la yónni kon yow kilifa jataay bi ñun dañuy barkeelu rek buñ barkeeloo bu ne def suñu yëfi dong rocc ko ndànk bàyyee la yow nga ubbi tëj ñaan dénkaane bu ko defee ñun ñu def suñu fi dong ndànk rek waaw ñi lay sant bu baax tey di la xoolee jëmmi ki la yónni di Cheikh Sidil Mokhtar xalif général la bor jàll na fi yàgg loolu bëgg tënk di ne sa maam ju tedd ji yi dañoo sàkkoon ci man ma wax ci affaire yu yitte fekk lu doom ju baax ji sëriñ Bachirou xel comme wax wax ju am solo may bañ a répété waat may tënk li ma kii woon rek bay àgg ci rek ne la ne sëriñ bi jël xasiid ak xoqa ne señ bi da ko def portrait boobu boppam la bëgg a wane waaye ci mbaax ga ak woyaf ga ak mën a jàngale ga ak ñam doon waxal booba di ñu garaaw di ay doomi soxna ak ay ceddo yoo xam ne yu bari xamuñu ko mu mu def ko forme wane portrait ne gaa yu baax yi nii lañ meloon te fekk boppam lay wax ci la mu ne nag ba ma tënkee loolu nag ak wane na gaa yu baax yi niñ meloon ak ak fi mu leen bëgg a teg bu ngeen jaaree fi ngeen di àgg ma ne sëñ bi dafa def day koo xam ne li muy woo li muy woote ñëpp la koy wooteel ñim bokkal ak ñim bokkalu ñu ñuul ñeeg ñu weex ñi bokk yeeg jàmbur yi ñëpp la ko yéene ku yàlla bind rek yéene la teraanga yi àdduna ak alaxira ak tabba ajjana ak ngërëmal suñu borom ma indi fi ñeenti ndénkaane yuñ gëstu yoo xam ne benn bi da koy dénkaane nit ñëpp benn bi mu dénkaane ko sëriñ Cheikh Adama Guèye benn bi mu dénkaane ko mu dénk ko Cheikh Moudou Fadal Cheikh Moudou Fadal mu Cheikh al Khadim xam nga li mu ci moom benn bi mu dénkaane ko soxna Penda Diop bu ko defee soxna yi dégg ci ne yoonu murit amul góor ak jigéen sëñ bi li muy dénk ñëpp li muy dénk lay dénk ñëpp ci gàttal ci gàttal Euh, dénkaane bi mu dénk Cheikh Mamadou Fadal euh, bi mu dénk ñépp waaw da ko gannaaw bu mu tàmbalee noonu muy tàmbalee ngeen ko xam ne julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko amartu ko ayyuhal muxaatab digal naa la yow mu may waxal anta wa man sa yaqif ala hadihi al yow ak képp koo xam ne dana taxaw ci araf yi donc kon loolu ñëpp ko moom dama koy def ngir yàlla nag dama la dénk nga nekk mu'min muslim muhsin bi mom moy dénkaane général bi nga xam ñëpp la nga xol contenu bi ñeneen ñi mi dénk itam ak liñ doon ci mom genn wax jee bu baat yi wuté itam manam men la da ngay nek mumin muslim muhsin mu ne ko al iman gëm yalla te loolu xam ngeen ma ko delloo ci hadith jibril bu ngeen xam ñom sëñ bashir mi dañ ko faral di hadith bu gudd la du jar ñu ci delloo ci dégg ngeen ko ba tay nga xam ne moo formé iman ak islam ak ihsan nga am ihsan ñi def tasawuf ci lañu basé wo mu ne ko al iman an takuna aqaiduka xaqiqatan mooy li ngay gëm nekk dëgg bul tricher bul def lii bul li ngay gëm nekk dëgg ci yow ngir yàlla wal islaam an laa tatruka shay bul bàyyi dara loo xam ne mën nga ko ci ah ci jaamu yàlla yi te defoo ko muy waajibaat yi ak mandubaat yi loo ci man rek dee ko def bu ci bàyyi dara wala ihsaan te ñun te li ñuy def foofu la tabbi nga an taqsuda wajha llahi taala fi kulli ibada looy def rek nga jublu ci jëmmi suñu borom mu ne al mu ne ko al iman dalay musul dalay musul ci ak kéefar mi ngi fit mu ngi firi mu ne al islam dalay aral aaral say jaamu yalla jaamu yalla yu nak moy yoon yi ak tax dem àjjana ñun ñepp ci lañ bëgg dem da yalla lañ ci dem ak jaamu ci barke bi Sëñ mu ne ko islam moy yoon yi lay du tax a dugg mu ne ko al al ihsan rafetal dalay fegal bokkale yalla gu gu feñ ak gu nëbbu ak nafiq ndax naafeq googu day waral yàlla delloo say jëf yàlla nañu ci yàlla musal naa mooy ngay wane lu nekkul ci yow mu ne ko boo defee loolu nag na nga taxaw tuub jëm ci yàlla te rafetal sa yéene suba ngoon te bul tayeel bul loolu la digg dénk ñëpp am kon al iman al islam ak ihsan ak ñu ko firee ak ne ko na boole nag di tuub sa borom di rafetal sa yéene suba ak ngoon te bul tayeel loolu mooy ndénkaan li mu ndénkaan ñëpp donc kon islam la digal te xam ngeen Eh, iman ak islam ak ihsan ni ko hadis jibril indee yàgg ngeen ko dégg ba yonent bi toogee sallallahu alayhi wa sallam ñu toog xam nga yonent bi daan def bu toogee gars yi wër ko muy waxtaan ak ñoom ñu ne benn waay ñëw boo xam ne ñun mbooloo mi kenn xamu ko ci te mu sol yëre yu weex te ku de da ko rafet ku weex tàll bu noppi feeñul ci moom ne dafa tukki woon ndax xam ngeen feeñul ci moom asaru safar maanaam eh, pënd wala dara ndax xam ngeen arab yi bu ñu daan tukki dañuy war gëléem wala fas te arab yi désert la boo tukkee lu sori da ngay fënd waji ji fekk ñu tok musul sol yére amul ben ta pousse pousse pousse ben pousser te ñi tok kenn xam ko te boobu communauté bareegul daanaka ñëpp xamante woon nee na mu ñew ba sës ay baaraamam ay tankam tank yonante bi ne ko Muhammad lan moy iman mu ne ko xam ngeen ni nga ko waxee nga gëm yalla gëm yonante bi gëm bis pénc dégg nga gëm dogal gëm sirat non ngi ko limé mu ne ko waxa nga dëgg mu ne ko lan moy islam mu ne ko nga gëm ne yalla kenn la gëm na man yàlla mu yoni di wor weeru koor di joxe asaka di julli julli ju doon di aj màkk ba ko mané mu ne ko wax nga dëgg mu ne lan mooy mu ne ko lan mooy ihsan mu ne ko ngay jaamu yàlla mel ne yaa ngi koy gis ndax boo ko dul gis yàlla yàlla moom mi ngi lay gis mu ne ko wax nga dëgg mu ne ko euh, saa kañ lay taxaw mu ne ko ak ah, ki koy laaj dëgg ki koy ki koy laaj gënu koo xam ki koy laaj ki koy laaj gënu koo xam ki koy laaj mu ne ko wax dëgg rek dal jóg dem bu ñu jógee nag yonent bi ne yi ndax xam ngeen kii ñu ne ko ah ñun kay xamuñu ko doon te dañoo jaaxle sax kilifa ko toll yow mu ñëw bu sës ci yow sës ay tànkam say tànk naan la di la laaj nga koy wax mu ne la waxee dëgg may leen kii jibril la dafa ñëwoon di leen xamal seen diine hada jibrilu kaana yuallimukum umura dinikum xadis boobu nag ki la suñu tubaab delloo li muy wax donc nga xam ni mu ni mu islaamee ni mu ihsaan yi mu delloo ko ñetti baat yooyu kooku loolu digal ñëpp nga xool li muy digal seen Cheikh Cheikh Adama Gueye nga xam ne awalu man taallaqa bihi aw mu awalu man amana bihi lañ koy waxee ay ko def moom maa ngi sant yàlla bi nga xam ne waral nag nit di laaj lu mu xamul di julli ci bi noonu mu koy defee nga xam lu muy def lu la julli ci bi sant yàlla koy tàmbalee fii ne damay wax ne ñeena fi sëñ Cheikh Adama loolu ndax sëñ Tuubaa ko ne hada wa ya aadamu ya muridu in kunta nuura rabbina turidu yow aadama yow murid bi ma ne ko ndokk ki ndo waaye ki sëñ Tuubaa ne yow murid bi kon nag suñ yàlla ñu defal ñun ñëpp rek ñuy ay muritam hada wa ya aadamu ya muridu in kunta nuura rabbina turidu fa dum ala ibadati rahmani nga xam lam dëkkaane na nga na nga sax ci jaamu yàlla wala takun min abidin niswaani bul bokk ci gars yi jaamu jigéen ta topp soxna yi rek fu ñu la jëmale nga jëm fa nangam nangam di topp sa bakkan déedéet ci waxin la mooy bul topp sa bakkan da nga jaamu yàlla te wéetal sa borom kun musta kun muta annisan bi rabbikal ajib wala tamisan ridwanahu takun najib na nga wéttali ko sa borom mi muy bu kéemaane te foo nekk rek na ngay sàkku ngërëmul sa borom woo du maanaal ixlaas yi bi naf si dahran fatanaalal faida da ngay sellal li ngay def mooy ihsaan gi rek ak di def jihaad di di di di tàggal sa bakkan di jihaad nafs wala takun multafitan illa lima yajubu qalbaka ila rabbi sama bul gestu lenn loo xam ne lu la jëmee ci lu dul sa xol di jëm ci borom asamaan si wa kullu ma yaxulu bayna bayna bay kullu ma yaxulu bayna rabbika wa baynahu fatruk tafawuqu gayraka lépp loo xam ne dafa nar dox sa digg sa sa borom bàyyi loola donc mooy amul walud bi ka wa rabbika wamil ilayhi wattaqihi wattakilan ilayhi jëmal ci sa borom te daw làqu ci moom te di ko maytu te wéeru ci moom bul wéeru ko ci sa borom nga xam tawxid la koy jàngal iman la ko jàngal ihsan la ko jàngal kon la mu wax mbooloo mépp da nga gis moo la wax nga ñëw ba tey pour amul benn différence li mu wax Cheikh Mouhamadul Fadal mi doom mi doon ci moom li mu doon ci moom gannaaw bu mu ko waxee ne ko da koy digal fala yaxurun naka yaa bunayya xam naa yaa bunayya booba ay jamono la ndax sëñ Fallou mujj na nangatul loolu dafa mujj rek waxtu bu nu wëtiyee bil iraada yooyu yi mu wax gannaaw bi waaye bi jamono ji xam na boobu loolu ñëwagul mu ne ko bul lekk rek yow sama doom maa ngi jégalu ci waxin bi sax waaye mbindum sëñ Tuubaa lay nettali fala yaxurunnaka yaa bunayya qiilu naas yaa sayyidina wabna sayyidina gars yi daal bu ñu la kii nag gars baax nañu waaye yow sënk bi suñu doomi sang sëñ Tuubaa mooy wax ak sëñ Fallou ci wax ji mu ne ko li gën a baax ci nit mooy li nga amal sa bopp la lu waaye du la la ay baay amal wala ay maam wala ay maam mu ne ko puukare wu dëgg li ko nit ki fi ñu ko war a defee mooy ci ay jëfam ak i waxam mais wëtu puukare woo ay baayam ak i maamam ak i nijaayam Sëñ Tuubaa mooy digal Sëñ Fallu lii wa inal faxra fi l afaal wal aqwaal laa fi l amaami wala axwaal puukare dëgg wala puukare dëgg mi ngi war a nekk say jëf ak say wax waaye wëtu nekk say baay ak sa maam ak say nijaay wa inna sharafa fi l himami l aaliya kon baay bi ñëw mu nekk teraanga dëgg mi ngi nekk ci yitte ju kawe سيدي بشير جنين نكو لا في الرمم الباليه دو تي يخي ميغا خامني لان شرف الاعراق يحتاج الى شرف الاخلاق داكور في باخ بق في باخ باخنا لول واي لي ام سولو نك موي سي جيكو باخ تاخو تو ام ولذلك قالوا سيدي سي تواني كوم لول لول تاخ ني كين كي كي اسكانام باخ تي اب يارام متو لا شرف لا حمد لمن شرف نسبه وسخف ادبه كي خامني فام بوك دفري تباخ waaye waaye ab yaram ak jikkoom demewul noona kooku taxul ñuy wax ku moo tax mu ne ko Sëñ Tuubaa ne ko na nga nekkee ansam miyan wala tekkoon ansam miyan ansam benn waaye la bu ñuy tudd ci waxeen arab dafa nekkoon ku jàmbaare góorgóorlu bu nekk buur di ko bàkkoo nag mu ne ko nag kooku te yàlla def na mu mu cosaanoo ci cosaan lu weef bokkut ki nga xam ne da ngay nekk nit ku puukaree woo ay yax ndax instant moom moo waxoon ne mu ngi ko Noomaan la tudd Xaaji bi Noomaan nga xam ne demoon na ba nekk buur te juddoowul ci euh, ci néeg buy doon nguur mu ne nafsu isaamin sawadat isaama wa allamatuhu lkarra wal iqdama wa sajaratuhu malikan huwa moo isaam yitteem ak farloom moo ko tax mu dem ba nekk buur waaye lum lu mu donn ci ay bàyyi wala ki naan ay ay maam sëriñ bi sëriñ bi ak koddi ni ko wax ne ko li ma la bëgg xamal nga xam ne mooy tedd nga ak cosaan luñ donn taxul ñuy wax loolu baax na loolu sax de waaye li jëriñu li jëriñ nit dëgg-dëgg mooy la nga defal sa bopp bul wéeru mukk ci lu dul li nga def sa bopp wala tax si bañ nal maj da yuurasu yuurasu bin nasab bul jàpp ne teraanga dañ koy donn ci foo bokk ki daal tax nit ki daal lay tax mu kowe mooy lu boppam donte ay baay yu baax la am ak maam yu baax waaye melul na mu kenn du ko kenn du ko jàppe ko baax sëñ bi daal koy teg jox ko léebu arab ne ko caru garab garab guy meññ ab car bu ca bokk te meññut nit ñi duñ ko jàppee lu gën ak mat rek idil xusnu lam yusmir wa in kaana shobatan min al musmirati yataddahu naasu fil xatab ab car boo xam ne dafa bokk ci garab guy meññ bu amee te meññul parce que nit ñi meññeet meññeet bi lañ soxla su meññul nit ñi matt lañ koy doyee waxi baytu jaamur baytu sëñ Tuubaa jël dugal ko ci ndénkaane li muy sëñ Tuubaa daal nag allahuma ihdina siraat al mustaqim da ngeen ñaan gi fa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa sallallahu ala sayyidina wa sallam dénkaane lu nga ko analyser tas ko mbuyu baree bare génn ci waaye comme dafa xat te dañ koy daal tënki noonu rek ndax jotaay bi yàgg na beneen bi beneen bi dénkaane la comme dénkaane gis nañ lu mu dénk ñun ñëpp gis nañ lu mu dénk sax suñu Adama Gueye gis nañ lu mu dénk Cheikh Amadou Fadal gis nañ lu mu dénk Soxna Penda Diop donc xam ne kon message bi amul góor jigéen soxna si war nañu ko déglu bu baax baax te ni mu ko tàmbalee qaala taalibullahi wa rasul arraaji minhuma rida wal qabul sëriñ bay wax yuusi muridatahu zawjata ammihi penda jóob gafara allahu lahuma lana wa laha wa maha anna wa anha kulla danbin wa xuub mi ngi ñaan yàlla jéggal ko te jéggal ñu moom mi nga xam ne soxnas bàyyi taxam la da ko ne yow na nga taqoo muñ waxoon na ci kelte gaa yu baax yàlla te ragal yàlla ci lu feeñ ak lu nëbb boo ko defee rek yàlla doon la jéggal na nga sax ci tuub tey jihaadal sa bakkan te bul jëm ci lenn lu ak njub na ngay woyefal sa kaddu na ngay def sa def ndànk na ngay toroxlu na ngay souffrir sa bopp na ngay sutural sa bopp na ngay wàcc sa kaddu soo ko defee rek nga am gërëmal suñu borom bul xool mukk lenn fekk yaa ngi dund ci lenn loo xam ne yàlla daganalu ko na nga moytu jëw na nga moytu rëy na nga saxoo noppi ak muñ na nga moytu wax lu amul na nga moytu ngistal ndax na nga moytu ak waroo sa bopp dama baax ba ni laa nangam na nga moytu wut tur na nga moytu di bari mer na nga sax ci dëggu ak sellal na ngay digle lu baax boo ko amee rek da nga am la nga bëgg ne ko nag comme jigéen la bu nekk ci këram nag wala tarumi taatallahi bila taati zawjika taqi dil ola bul bëgg mukk bul jàpp mukk ne mën ngaa topp sa borom te topp sa borom kër waaye nag na fekk muy borom kër boo xam ne attaqi la di lon la ragal yàlla la kon laa taata li maxluqin fi masiyatil xaaliq lu naq lu neexul yàlla kenn du ci topp kenn kon soxna yi bu ngeen bëgg yi fi gën a barkeel gën gaaw dañuy dañuy dimbule borom kër topp leen mu ne ko na nga xam ne jihaadu jigéen ñi mi ngi ci topp seeni borom kër ndax soxna saa bu ko borom këram gërëm gërëmee sunu borom dana ko gërëm ci kaw nag borom kër ba nekk ci lu neex yàlla nekk ci yoonu yàlla bu fekkee ne borom këram gërëmu ko nag fitnaal na ko indi coono yi caat la sport yi di ko woyal gaay yi di ko kéel fii nangam nangam fitnaal ko lu mën def yàlla du ko gërëm te na fexe ba lépp lu génn ci yow rek nga def ko ngir jëmmi yàlla li ma bëgg a wax rek mooy ñu xamee ci ne message bi amul góor a jigéen message bi amul mbokk ak jàmbur message bi amul mag ndaw message universel la pour ñu pour ñu tënk pour ñu tënk te te te te te daaneel eh, damay wax ne dañ dañ sa sakkoon nañ ci ñun sax ñu soññe ci ay liggéey yu fi am danañ ci soññee bu noppee door a proposé li ñuy proposé bu njëkk ba mooy eh, liggéeyu maam jaara bi yéen a ngi ci sànn jàmbaar lool danañ ko soññee ñu góorgóorlu ci bu baax a baax ndax soxna sa moom ku ko liggéeyal sëriñ bi nga liggéeyal kon eh, loolu ñëpp ngi ci woon waaye nañ ko boo doolee bàyyi xel dool ko boole ci liggéey bi te gën cee góorgóorlu am na soxna yu ko fi nekkal ak ñu fi nekkal commission bi ak da ngeen liggéey bu rëy bu fa suñu mbokk yu baax ya ca di def ñëpp ñu ngi ci jàpp waaye ñu koy fàttali ko jàpp beneen bi dem mooy liggéeyu Touba ca kanam dégg ngeen ko ñu ngi ci yëngu di ci taxaw euh, mbokk yu baax nga ci yëngu yéen a ngi sax waaye ñu fàttali ko soññee ci bu baax a baax ndax lépp kenn kee tax koy def Serigne Touba ñu koy def te liggéeyu Serigne Touba du jeex kon kenn ku nekk rek war nga cee taxaw war cee góorgóorlu loo man noonu la ñu soññee ci liggéey yu baax yi fi nekk yëpp fondation yeeg Serigne Touba yëpp lo nañ ci góorgóorlu kenn ku nekk loo ci mën ak loo ci mën nga góorgóorlu ca ndax te jëmmi sëñ Tuubaa tax foofu nag lay ak àggee nag ci li may proposé mu ñaari mbir rek ndax at mu ne sonal naa leen ci di indi ay proposition yu bari ren nag ñaar rek lay indi ñaar rek damay tàmbalee ci bi gën a simple nga xam ne mën nañ koo def feek maa koy maa ngi koy junj ab kilifa léegi proposition bu njëkk bi mën nañ ko def feek beneen proposition bi nag dans long terme lay nekk ci kanam

lii ñuy def at mu nekk xasida yi ñuy at mu nekk ñu génne xas ñu génne document en anglais parce que réew anglophone lañ nekk te seetlu naa ne jataay bu amee bari américain yi bariwut te waroon nañu fexe ba waa réew mi di xam li ñuy wax parce que message su jàmm la message su bëggante la message su diine la message buy setal l'islam la islam bi nga xam ne dañ ko mooy doomu bàjj na àdduna sépp fu ñu toll damay wax ne imam islaam lu ñu for xëpp ko donc mooy doomu bàjj na àdduna si lu xew dañaan muslim la duñ fa nekk naan tijaan bala wala murid bala wala xaadir bala wala naqshabandi bi wala ibadu rahman dañaan muslim la rek kon loola war nañoo fexe ba nuñ defaree image boobu wane ne ñun jàmm rek lañu ëmb yiw yar lañu ëmb am ñu waxoon na ne aw yoonam rey mellantaan sax bokku ci kon na fi nit ñu maîtriser anglais maîtriser méthode yi fexe ba di ci collaborer mu koy liggéey chaque année ñu génne document li ñu fiy wax ñu ko fexe ba traduire ko mais commission traduire ko nag boo xam dañuy xam dañuy def ci tënk bu ñu mënta traduire tam ñu traduire sens bi jépp fexe ba tënk ko sens ba rek ndax wax Sëñ Tuubaa kenn mënu ko traduire moo ko alxuraan yam yi dëgg bu ñuy wax dañuy wax tarjamatu maanil quran wax tarjamatul quran alxuraan kenn kenn mënu ko traduire mais sens yi lañuy la ñu fexe ba tënk benn xasida wala benn ci ak wax yi ñu fay wax ñu tënk ko document génne ko chaque anne kooku mu proposition bu njëkk bi nga xam ne moom moo gën a jege mu mën a yomb beneen proposition moom itam daanaka li ngeen di wax dream la xaw nekk dream comme réewu dirim lañ nekk dañ ci xaw a génnaale géntaale moo di damay am proposition boo xam ne yëngutu taalibe yi ci Amérique yëpp bu ñu ko defoon benn yëngutu ndax kat naar yi dañuy wax ne wa daarihim maa dumta fi daarihim wa ardihim maa dumta fi ardihim barab bu ne boo fa nekkee da nga war a jàng jëriñoo ca te United States of America seen doole yëpp mooy bennoo gi loolu moom fedd li ko wax ju yàqu la yéen ñëpp xam ngeen ko doole ñu am ci àdduna si nga xam ne fu ñu toll ci àdduna si ñooy teg ak tiddi di def lu leen neex ñëpp ragal leen bay leen xel doole jee tax te doole ji secret bi mooy bennoo bi lañ fekk ay indien dëkk fa ñu ñoom ñu jógee fu ne ci àdduna si ñu jógee Europe ñu jógee Afrique ñu jógee Amérique du Sud ñu dajaloo ak seen conscience ak seen xel yooyu yàlla dimbali leen ñu taxawal lii ba muy benn réew cinquante état wala lu ko ëpp ñu def ko benn réew benn drapeau benn xaalis standardisé réew mi ngeen ko xamee bu fépp nuroo benn xaalis benn làkk benn wax réew mépp niroo boo demee ba ca Michigan wala nga jóge ca Maine nga dem ba Florida benn la foo jógee day mel ni mooy fi nga jóge te ay nit ko xalaat gannaaw nag ñoom prix de deux cent millions lañ mën a boolee noonu lu tax tutee ñun taalibe yi ñu mën def suñu bopp benn yëngatu yëpp ñu def ñu def ko benn quinzaine Sëñ Tuubaa ci Amérique waxeen la mën naa mën naa am nekk léegi waaye ca kanam quinzaine Sëñ Tuubaa ci Amérique nga xam ne yëngu yi ngeen def yëpp structure yi dañu fexe ba mu nekk benn yi ñu fi yëngu yëpp rek li jëm Poroxaan ak li ñëw tuddee ngan geek li jëm Tuuba ak yeneen yeeg yeneen yëpp nekk benn yëngu boo xam ne ndax ñu ñu ñu ñu wuyoo ko wooteeb Sëñ Tuubaa bu moo xam nag yaa rabbi ijaalil muridiina maan fi xisnikal xasini wa shablaj maa Sëñ Tuubaa ko ñaan te dana am te yàlla nañu yàlla def nag ñu bokk ca ña koy amal ndax dañoo wax ne Sëñ Tuubaa lu mu bëgg dana am te lu mu ñaan dana am te waxoon naa fii daaw jéeg ne lu mu ñaan ak cant la waaye yàlla def na ko ba noppi kon luy nuru ñaan ci xasida yi rek ak cant la ndax ya- ya- wa suqtali kulla ma ahwa bila talabin sawqan bihi yastabidul judu wal karam te suqali kulla ma ahwa bila talabin sax amna fenn ko waxe xam li mu bëgg lu ne yalla dama koy defal ci sasa gannaaw bëgg na ko koy ñaan nak tu ou dama sami yalla nañ ndokk ci ñakoy amal so koy wax léegi rek day mel ni la waye comme rewum gënt la sañ nañoo gént <laughs> sañ nañoo gënt activité murit gep ñu def ko ben nga xam dañu jël une quinzaine ngeen koy tuddé 15 jours yoo xam ne États-Unis gépp dañu dañu mobiliser Sëñ dem naa ba ne sax même këri Sëñ Tuubaa yi sax ñu ñu tënk ko di ko songandoo buñ song génn kër rek dóor ko mu daanoon lépp it yëpp féete boor ñu song geneen waaw dem naa ba ne sax bu ngeen demoon ba ci euh, pour objectif ñu set zone time yi xaw ma zone time nga ne waxoo ma isti beeg central beeg mountain beeg pacifique ak Hawaii ak Alaska fenn fu nekk rek ñu commencé nord ba bu ñu defee génn kër song ko mu féete boor ñu song geneen bu déwénee bu buñ ko defoon rek lépp dana mën a gaaw dana mën a sotti te lépp danañ gën a bennoo ci gàttal rek buñ ko songee woon doon rek nga xam ne li ñuy def ci at bépp dañ koy programmer ci 15 jours mooy nekk 15 jours état sëñ Tuubaa ci États-Unis ni koy financé nag ndax loolu tam ci la ndax li ñuy wax euh, euh, yëf yi xaalis sa ko yor calcul bu tuuti laa ci def mooy wax rek ne bu ñu doon def taalibe bu nekk bis bu set da nga génne benn dollar. minimum vous buñ viser 10 000 talibans, minimum admi dañu mëna sève 3 millions 650 000 dollars 3 millions 650 da ko ëpp ndax li fi nek 10 000 talibans. tayit talibé bobu dañu gënal ëpp de la bis mais minimum vous avez ñu gënë lolu 3 millions 650 000 dollars par at lolu kër goko door da na ci sori lolu de bu ko agalé tam da na ci sori bu ko du tee leneen la ñuy financé lépp dinañ ko mën a financé te te lii exemple laa joxe rek mais da koy weesu fuuf fuuf fuuf loolu bu ñu ca góorgóorlu woon rek eh, sëñ tuwaat ciy dimbali ndax moo ñaan ne yaa rabbi ijaalil muridina maan fii xisnika al xasini wa chamlañ maan moo waxoon tam ne te ci laa daane la ci ñaan yi wal tuf bina wa qawwina wa kun lana wa hab lana xusnal xitaami rabbana wa salliyan wa salliman ala nabi waqdi bihi xaajata kulli muslimin tawil lana umrana صحيح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمر كل اعداء تضر بنا tudd ملام باي ci la bokk ci mu tudd tudd malaam baay yàlla ñu yàlla musul ci ayam wa damiran kulla aada'in tudru bina qabla alwusul lana ya allah ya allah ihdi jami'ana as-sirata al-mustaqim wa bi sahihin kullana bila saqim li ma li nga xam ak ñaan la ko ma defoon ci sëriñ bi tam lay tënk ci wolofal rek kon bisu xasida la ñak sëñ bi doora ñu doora jël kaddu bi dama waxon ci gàttal rek jërul ma ciy dellu si ne eh, yàlla na nu wér yàlla na nu am yàlla na nu tal yàlla na nu wér yàlla na nu tal yàlla na nu am ci darajee Cheikh ba mii yàlla na nu xam yow sëriñ bi Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu yaa xam li yaa am li gën man li gën muy démb tey ëllëg itam yaa xal di fulal nu yàlla ngi sëriñ bi yokkal si mbir nangul nu te sàmm ban far jofal te jofli fii ak fa jëm yaa nuy amal kenn du yow sëriñ tuba kenn du yow doo kenn mbakke bal la am nga lu kenn amul fa buur ba yàlla yaa wax lu kenn waxul rasulallahi sallallahu alayhi moo tax mu def la ngay habiballahi farraxani al akramu tafrixan yaduum bi ye xillun wa hibbun wa xadim yaa nu malal yaa nu amal yaa nu sañal te lépp lu am ci lu baax yaa ko waral kenn du dara kooku sama conviction la ci waxin ci ñun taalibe yi wane lépp sëñ Touba kenn du dara lenn du dara fenn du dara lu fi dara yaa ko defar ba muy dara yow sëriñ Touba am nan la ko nag dañ ci sant yàlla am nganu yow sëriñ bi te yow yaa jara am na sax fi yow ba faw cëy yaa jom radiyallahu anhu am nan la am nganu yow yaa jara am nan sax fi yow ba faw cëy yaa bari jom ca darajay kookee nga doon liggéeyal muy sallallahu alayhi wa sa dara darajaak mbooleem ñi lay liggéeyal wér ak ndimbal xéewal yu dollee baawaan yàlla nañ ko am te du bu nu gis lu dib safaan ci daraje kii nu amul lu dul moom damay sëriñ bi te doy nu sëkk gën ci nun lu dul moom kooku di abdullahi xaadimu rasul nil naa bihi muraadana waxee rasul rabbi bi xurmatil xadimi ahmada lixfir wa waxaalan ahmada amina amina wa sallallahu ala nabiyina wa man wallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin ñoo ngi ci eh, guddee gi rek jërë ngeen jëf yàlla nañu yàlla defal lépp mu ngërëmul sëñ Tuubaa yàlla na yàlla faj aajo yëpp kon sëriñ sa jataay baa kon eh, ñun loolu lañ doon barkeeloo rek ñu ngi jéggul na xaw a gi rek ak xam seen seen seen seen waaye ñu ngi jéggul yàlla yàlla faj aajo yëpp suñu barke borom Tuubaa wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin Dear right. <laughs>